assalamualaikum warahmatullah ah, ñu ngi nuyu mbokk yi seetaan yëpp macha allah di leen ziar di leen baalu ak waaye di leen baal ñaan yàlla yàlla boole ci jéggal di rafetlu li nga xamante ni macha allah mooy xew-xew bi nga xamante ni annuel la muy xew fii ci stade amadou bari yàlla cëralee ko waa géejawaay waaye nag ñu bokk kook àddina yépp yépp yépp mu nekk bis boo xamante bis bi ñëpp ñëpp ñëpp di xaar la ñëpp yàkkamti ko tamit macha allah ñu koy amal le 8 mars tombeek journée de la femme mu nekk bis boo xamante ni benn jigéen waru ci dellu naaw jigéen ñëpp a war a takku taxawu defar ba mu baax pour bés bi am réussite totale waaye nag duñu sori te ñaanaluñu suñu wayjur bu baax ba Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin li nga xamante ni moom moo initié woon lii ñukoy koy def ci ndigalam macha allah mu tegoon ko ci loxo Serigne Fata allah muy suñu responsable moral mu and ci ñi ci andantel les présidents ak présidente euh, Adja Maguette Ndiaye mi nga xamanteni ni macha allah euh, moom tamit euh, kenn du mom ci ci ci xadara bi ñu tew fi ci ndigalu ab ñewoon pour fatali suñu bop fatali mbokk jigen ñëpp rek ndax liñu wax ñun jigen ñi lañ koy waxal ndax jigéen moo mën a defar mu baax mais jigéen tam moo mën a yàq mu yàqu te xadara bi ku ne xam na ni si muy am nii dafa nekk loo xamante ni lu rëy la nekkul lu ndaw kon bu ñu amee deux cent personnes sax yu taxaw ni dañuy defar mënuñu koo defar mais ñun ñoo war a yaraat suñuy ko am yar am teggin xam bu baax a baax lii nga xamante ni moom la ñu am ñu jàpp ko wane si yar wane ci teggin macha allah comme ni ko sunu sëriñ yu baax yi waxe di nuyu soxna nday assu al amin sha allah mom tamit li wax ken waru ci won sax tek dara sha allah wax waxam bu rafet bi nga xamanteni ñepp koy deglu ma sha allah ci yar bi ci dal bi ci teggin bi sha allah ci éloquent bi laf chat wa di ñew tamit ci soxna asi tu si bu mam as bi nga xamanteni moy mooy borom géejawaay mom xadara bi mom ca goxam lay xewé mom moy borom géejawaay moo nena nee ko yow bo waxul gis ba kuy wax ndax yow sha allah yow yaay gédé way moy yow ñu leen di nuyu ñom tam ñu wax wax bu ama am solo ci li nga xamanteni mom moy am le 8 mars inshallah allah di soñat suñu bop di soñu suñu mbokk jigen ni ñu rafet rafetal cholki mu jot baña sol lu yarax lu yiw ndax benn ngon la yagul jarul ñew di wone tar, jarul ñew di wone li la mel wala di wone sañ sa jaruko nañuy xam li nga xamanteni ni moo ñu yëkkati ñu def ko ñu am ci yàlla macha allah suñu sëriñ kontaan fa mu nekk te nag damay dégg ñi nga xamante ni la sëriñ Abdou Aziz El Amin waxaloon ni leen bés boobu képp ku ci teew cheikh dina la takkal garaat kon ñu ngi ñaan yàlla ñun ñi ñëpp yàlla bu kenn manqué yàlla na ko ñëpp yàlla nañu yàlla may ñu commencé ci bisimilah rahim àggali ci alhamdulillahi rabbil alamin ba ñu dem ak suñu sago lépp baax macha allah réussite totale suñu sëriñ yi nag wax fi lu am solo muy cent franc yi nga xamante ni wax nañ képp kuy ñëw di indaale cent franc mu nekk loo xamante ni ci journée de la femme bi nekk na loo xamante ni bu ko defee dañuy manqué marqué empreinte parce que am na hôpital boo xamante ni hôpital yaa ngi foofu jege nañu buñ ko dajalee nu mën a toll ñu dimbalee ko malade yi nga xam ne ñoo fa nekk loolu nekk initiative bu rafet rafet rafet rafet ñu ciy saluer soxna nday Assou si Al Amin ak soxna Asiyetu maam As ibnu Seydi Jamil masyaallah di nuyu bu baax nak soxna Aida Mbène Diop mi nga xamante ni macha allah dalal waaw muy ku baax ku ku ouverte waaw ki nga xamanteni mom xadara bi rek moko ñor te Aida ku baax la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ziar ndax occasion bi mom momako momako momako yombalal masyaallah ma ngi nuyu ñi fi ne ñep di ziar ñep di wax ni yalla nañu yalla may ñu fekke ak jam kenn baña a di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu la